bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama wa baraka ala sayidina amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi yi ñuy seetaan ci ñoo ngi leen di nuyu GMT ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndorkeel bu baax di amaan mbégte di dellusiwaat ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaan lépp jëmoon ci jaar-jaar yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci settantal ak ràññeele bu baax a baax a baax ñu ko doon amale fii ci site internet bi nga xam ne waa daaira muxaddamatul xidma ñoo koy saytu ñu fiy jàllale ay njàng yu baree bari yu wuute jataay bii nag bokkoon ci jataay yi nga xam ne ñu ngi ko jagleeloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii mooy ñetteelu jataay bi muy jàll la cinq bu ne ci weer wi ñaari jataay ya jiitu doon nañ waxtaane lu jëm ci askanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ ci lu bari ci settantal ba ci jataay bu mujj bi sax li ëppoon ci liñ doon wax mi ngi aju woon ci diggante ñaari waajuram yu tedd yooyu di soxna Aminatu ak eh, Abdullahi mi nga xam ne mooy ay waajuram ba nga xamee ne lu jiitu loolu it wax nañ ci ay maamam tàmbalee ko ci Adnaan ba agsi ci ñaari waajuram yu tedd yooyu yàlla na leen yàlla doolu yërmande tey nag jataayu tey bii biñ li nga xam ne moom lañ doon tënk cam aju woon ci askanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ ko diggee woon mooy ak càlla la lay doon waxtaan wi goo xam ne fas nañ yéene tolluwaay buñ ñu toll rek ci ay étapes yi nga xam ne jaar na fa moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ci téere yu mag yi nga xam ne rotal nañ ko biiral ko ci jaar-jaar yooyu ñu baaxe ko mbokk yi rawatina it lépp loo xam ne nii xamees na ko it sunu sëriñ Cheikhul Khadim rotal ko moom it des na ko béral ba mbokk yëpp man cee jariñu incha allahu taala euh, jataay bi jàll waxoon nañ ne jataayu tey bii nag dañuy daal di wax ci bi nga xamee ne soxna Amina toll na diggante ba tollook lu mat ñaari weer jataay bee waxoon nañ ko ci la Abdullahi mi waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccu liggéey soxna Amina tollu ci li ñuy wax jigéen ji wérut tolloog ñaari weer nga xam ne mën nañ ne bi mu tolloo ci tolluwaay yooyu ay maami yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ci mel ne Abdul Muttalib moom nga xam ne wax nañ ci moom du yaatu nekkoon sangub màkk ca jamono jooju yàlla dimbali woon ko moo doonoon koo xam ne kuñ joxoon cër la kuñ joxoon wàccuwaay la ku jekkoon it àdduna la waaye it ku amoon cofeel la ci waaye it ku amoon cofeel la ci soxna Amina ndax tànn gi nga xam ne moom la ko tànn doon ko wër ba gis ne askan wam bokk moom soxna Amina mooy ka ca gën te bii soxna Amina biñ ko jébbalee sëñ Abdullahi mii gis nañ ne lañ doon séentu ci moom ci mbaax ci melo ci jikko ju rafet lu ko raw lañ gis ci moom moo tax cofeel gi daal di yaatu lool ci moom bi mu toll diggante ñëpp ko yéene woon mu mucc ci jàmm ñëpp ko yéene woon jàmm ba ci Abu Lahab mi nga xam ne sax buñ doon xool ci wàllu askan euh, mbokk la ci yonent bi sallallahu alayhi wa daanaka ak noonoom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay jëfam yu ñaaw bi yonent bi béralee ak yonenteem di woote ci lislaam ci la ko tàmbalee feeñal waaye lu jiitu loolu lu baax ak lu rafet ak yërmande la ko ëmbaloon ba jaral ko sax bis ba nga xamee ne jox nañ ko xibaaru euh, ne ko soxna Amina mucc na béggum bég ak yéene gum ko yéene woon jàmm ak yéene gum ko yéene woon mu mucc ci jàmm jaral na ko ba euh, jaariya ba nga xam ne maanaam mbindaan wala jaam ba nga xam ne moo ñëwoon di ko wax xibaar bi dane ko li gën a neex ci cadeau moom laa lay jox te loolu mooy goreel la nga moom sa bopp loolu mboolem mu arixuune yi nettali nañ ko saxal nañ ko waaye it dafa am lu am solo loo xam ne nii ñiy gëstu ci jaar-jaar yonent bi dañ ko tënk wax ko mu doon loo xam ne lu am solo lu mat a xam la ndax nee nañ ci baaxug yàlla ak euh, waajal gum waajal yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom xam-xam yi biñ gëstoo ba gëstu nee nañ yonent bi daal am na ñetti mbir yoo xam ne ñetti xaaj yoo xam ne nii ci ay xeeti kimtaan am na ci moom ca ñetti xaaj yooyu noonu amutoon ci kenn ku jiitu woon yonent bi sallallahu alayhi wa ci yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ba nim dikkee moom mi nga xam ne moo tëj buntub yonent yi ñetti xaaj yooyu mooy xam nañ ci moom muy feeñal maanaam ak feeñuk kimtaan yoo xam ne ni lu jiitu muy ñëw ci jamono muy feeñ te booba yonent bi ñëwagul jamono loolu duñ ko tuddee sax ñu bari ci ñoom sax bu ñuy wax ci arab irhasaat la ñuy wax wala xawaarix maanaam daal wala sax dalaa dalaa'ilu nubuwa wala alaamaat yeneen moo la ñuy utiliser yoo xam ne duñ jëfandikoo baat bi ñuy tuddee ji sax naan baat boobu bi mu nekkee bi yonente lañ ko sañ a jëfandikoo waaye lu jiitu muy nekk bu yonante xeeti kimtaan yi nga xam ne daana feeñ ci moom borom xam-xam yi nee na ñetti xeeti kimtaan la am na boo xam ne moom lu jiitu muy ñëw jamono la lu ci mel ne euh, bi suñ borom dajalee ruu yi ne leen alastu bi rabbikum ruuga njëkk a tontu loolu kimtaan la mooy ruug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne balaa axa kay yow yàlla buur bi yaay suñu borom ruu yépp yi nga xam ne mooy ruu yu anbiya yi ak ruy way texe di way texe yi ak suhadaa yi ñoom ñëpp roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu wax ba ci mbooleem ruuy yi ñi nga xam ne sax gëmuñu yàlla suñ borom forcé na leen bañ saxal ne moom mooy mooy moom mooy borom bi loolu mooy kimtaan ki nga xam ne daana feeñ ci feeñ na ci moom te nekk gutub yonent wala sax mbindeef yi ñëwaguñ ci jamono mu ñaareel bi nga xam ne yit nuroo nag bi tuuti mooy am na xadis boo xam ne dañoo laaj yonent bi sallallahu wa sallam ne ko kañ nga nekkub yonent mu ne leen wa aadamu bayna ruuxi wal jasadi maanaam ak yonenteem daal ba nga xamee ne suñ borom ma ngay tëgg aadama ngir amal ko mu toll ci étape diggante ruuga def ca ruuga ca yaram wa nee na boobal ak yonenteem feeñoon boobal ak yonenteem leeroon loolu it kimtaan la xam gum ko xam doon gum ko doon ca jamono jooju nga xam ne aadama mi nga xam ne ci la nit ñi soqi ko ñëwagut ci jamono wala amagut loolu kimtaan la yooyu noonu ak yi nuru yooyu yëpp dañ koy dugal ci xaaj bu njëkk bi ñuy tuddee irhaasaat yi nga xam ne wala kimtaan yi nga xam ne feeñ na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di mel na luy xibaar wala luy yëgle ak ñëw jamonoom te booba dara xewagut bu ñaareel bi nag mooy bu yaatu bi mooy bi nga moom lañu war a waxtaane tey mooy yi nga xam ne nag daa ànd ak ñëwug jamonoom mu bari lool boo demoon ci téere yi nga xam ne dañuy yaatal sax ci wàllu nettali danañ ci lim lu ëpp fukk ak nangam yoo xam ne nii incha allahu taala lu mu gàtt gàtt danañ ci lim lu mat ñeent incha allah ci jataay bi. beneen bi ci toppaan nag mooy xeeti kimtaan yi nga xam ne ñëw na jamono ba noppi waaye nekk gutub yonent mu doon feeñ te yooyu yu bari la yooyu yëpp danañ ci ñëw. kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisub altine la gane jamono loolu moom kenn wérantewu ci ak nettalikat yi li ñuy bari bari ab wuute ndax dafa am xadis bu wér bu wadd boo xam ne bañ laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu sayyiduna abu hurayra nettali na ko tey mu ngi ci téere yu wér yi bañ ko laajee ne ko lu tax ngay woor bisub altine tànn ko di ko woor moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane bis boobu day ci laa ñëw ci jamono ci laa judd waxaat yu bari sax ca ne ci bis boobu ne ci lay xewe waaye liñ ci amal solo rek ci jataay bii nii mooy yonent bi nee ci bis boobu ci la gane jamono kon bisub altine ci la gane jamono li gën a wér nag ci téere yi nga xam ne ci lañuy sukkandiku te daanaka li ëpp ci ñoom li ñuy nettali loolu wax mooy ci weeru gàmm la amoon boo demee ci téere yu njëkk ya ak téere yu mujj yi nga xam ne ñoom dañuy sukkandiku ci lu bari ci téere yu njëkk ya ñoom ñëpp saxal nañ ne ci weeru gàmm la donte am nañu wax leneen waaye li gën a wér daal bu ñuy wax comme nañ ko waxee woon liñ jàpp ni mooy li gën a wér te gën a siiw loolu rek lañuy ñuy seppi indil ko mbokk yi kon ci weeru gàmm ci la gane jamono ci fukki fan yi ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm dëgg la weerante nañ ci ne ndax guddi la wala fajar la waaye li gën a wéraatit mooy ca fajar ga la ndax nettalikat yi nee nañ ñu ngi wax naan jamono ji soxna Amina di mucc am na biddiw yoo xam ne nii ñu ngi woon ci asamaan si biddiw yi nag ba na faa nekk ba fajar mën na faa nekk ci waxtu guddi noonu lañ ko jàngate ñoom boroom xam-xame kon bisub altine la ci fukki fan ak ñaar wala fajaru fukkeelu fan ba ak ñaar ci weeru gàmmu buñ ko doon waxit at ma am na xew-xew bu rëy boo xam ne nii bu actualité la woon bu mu dajeel boo xam ne moog yonent bi ñoo bokk mennum at at mooma wala xew-xew boobu mooy li ñuy tuddee amul fiil mooy atum ñay ya atum ñay ya nga xamee ne abraha euh, bàyyi ko na fam bàyyikoo ànd ak i ñayam ak gàngooram ñëw ne dañuy màbbu si kaaba gi euh, du ñàkk ni ci waxtaan yi ci biir ca kanam danañ ci feeñ incha allahu taala at moomu ci la gën a jamono nattalekat yi nga xam ne dañuy nattalee di gëstu bu baax a baax àgg nañ sax ba gëstu weer wi nga xam ne moom la war a doon ci atum miladiya maanaam atum gan ak jamono euh, Seydina Isa euh, alayhi salaam Seydina Isa wax na ci wadd na ci alxuraan mu waxoon ne yonent bi ñëw ginnaawam Ahmadu lay tudd euh, looloo tax sax turu turam wu sell mi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu wax ne mooy ki ko njëkk tudd ci jamono waaye am na ñoo xam ne bañ gisee ne wadd na ci téere yi yonent yi ne yonent bi ñëw aw turam ahmadu lay doon nettalikat yi saxal nañ ay nit yoo xam ne daa nañ tudd tur woowu di ko barkeeloo ak di am njort lu rafet wala baa euh, yaakaaru mbaax ci seen doom yooyu ne yonent gi ci ñoom lay feeña waaye dara dara luy feeñal wala luy nuru ak nubuwa da wut feeñ ca ñoom ñooñee digganteem ak diggante yonent yàlla Isa toll na ci juróomi téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak benn maanaam atum eh, euh, cinq cent soixante onze miladiya ci la gane jamono boo demee ci téere yi nettalikat yi rawatina téere bi nga xam ne moom la ñu tuddee araxiqul maxtuum nga xam ne dafa dajale wala dafa tënk li ibnu ishaq ibnu hisham liñ dajale moom dafa dajale ak yi nga xam ne moo wadd ci téere yi mu arrixuuna yi tënk ko bokk ci téere yi mujj yi moom li mu wax ne nañ boroom xam-xam yi nattale nañ ba ne Euh, weeru gàmm woowu yi nga xam ne fukk ñaar la ci atum ñay ya dajeeg cinq cent soixante onze miladiya weeru abril la dajeel weeru avril la dajeel am na sax ñuy nattale ba ne ñaar fukki fan yee ca weeru avril ba moom lay dajeel biñ ko gëstoo ba gëstu ko boo ko doon xool ci atum miladiya bi nga xamee ne nag gane na jamono téere yi may bëgg a tudd daanaka lii may bëgg wax yëpp wax nañ ko muy dalailu nubuwa bu al imam al bayhaqi al bidaaya wa nihaaya bu al imam ibnu kasir kasaalika it téere boobu ñuy wax euh, euh, taarixul islaam bu imam al-dhahabi yàlla na leen yàlla yërëm ñoom borom xam-xam yooyu di téere yi gën a siiw ci téere yi nettali saxal nañ yii ma bëgg a tudd sunu sëriñ tudd ko it ci téeram bii di jës bul xuluub li allaamil xuyub tudd ko ci xeeti kéemtaan yoo xam ne nii bis bi muy gane jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoon na euh, ci njëkk mooy alxaafis sax wax na ko ci fath na ne ba muy gane jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na leer goo xam ne daal daa jékki-jékki ca jamono jooju nga xam ne bu doon fajar lañ naan fajar la goo xam ne nii gu lëndëm la bu doonu guddee ñu ne guddi la goo xam ne gu lëndëm la jamono jooju bi nga xamee ne soxna Amina mi ngi mi ngi mi ngi mucc am na leer goo xam ne daa ànd ak jëmm ju sell ji ba muy ñëw leer gu jékki-jékki na tay néeg bi ba mu leer naññ leeral Makka ba dem ba Shaam ba ca palay Xaysar ya mu leeral ko loolu lu sax la xadisu Irbaat ibnu Saariya boobu noonu di xadis bu gudd maa nett lu mel noonu yonent bi ci boppam di ko wax ne soxna Amina bi muy gane jamono ndax bu dee wax loo xam ne nii baaxawuñoo xam nit sax bu fa tolloo mu di ko xam bu ko dee wax dañu daal di xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel noonu war na koo mën a xam lu mel noonu war na ko mën a nettali ngir ne yàlla suñu boroom moo koy xamal moo koy wax soxna Amina daal gisal na boppam leer googu mu jékki-jékki ne tayyi néeg bi waaye leeral fépp fu mu mën a doon am na sax boo demee ci téere bi ñu tuddee nuurul saar nee nañ am na benn yahud boo xam ne ci fajaruk fajaruk altine jooju noonu ci bisub altine jooju noonu weeru gàmm woo fukki fan yaag ñaar am na yahud boo xam ne nii suñ borom da ko dimbali woon mu xamoon uh, alkutubu samawiya nee nañ fajar googu noonu doon na génn di wër di laaj naan ndax am na ko gane jamono ci bisub tey bii di ko laaj arab yi àgg ci ba naan di wër di wax naan ki gane jamono day ci bisub tey bii mooy nekk nabiyul umma mooy nekk yonente bu mujj bi mooy nekk yonente xeet yi yonente xeet wi yi nga xam ne mooy xeetu wi mujj ci xeet yi nee nañ doon na wax wax ju mel noonu ngir ne gis na ci nattaleem ak ci xam-xamam ak ci jàng goo xam ne jàng na ko kutubu samawiya yëg na ne ki gën jamono tey jii ci Makka ci Banu Hashim ci arab yi mooy nekk yonente mujjug jamono boo demee ci euh, téere boobu ma la wax da ko ca fekk kon leer googu noonu dafa bët néeg bi ba leeral palais Qaysar ya xadis bu wér la boo xam ne nii euh, Ahmad moo ko génne Ibnu Xibbaan ak Xaakim ñoom ñëpp wéral nañ ne xadis bu wér la loolu sëñ bi mi ngi koy li ci gis bu naan nuurun adimun xad yara bihi qusuura xaysara man kaana fi ummil qura makkata xayril xurumi nee na leer goo xam ne ni gu yéemu la leer gu màgg moo jékki-jékki ne tay loo xam ne baaxuwuñ ko xam mel nañ melax rek ne tay daal di leer ba leeral fañ nekkoon leeral palay Qaysariya waaye leeral màkk gépp foo man di toll ci màkk di yëg ne waxtu wi baaxuwutoon di leer waaye dañoo daal di gis leer googu noonu loolu kon day bokk ci kintaan yi nga xam ne moo gën ak jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ànd bokk na ci kimtaan yi nga xam ne it moo gën a jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ànd ca téere bi ma tudd léegi muy taarixul islaam lil imam az-zahabi nettali na ko boo demee ca jusul awal ca xëtu euh, fanweer ak juróom dañ ko ca fekk muy leer goo xam ne nii wala sawara soo xam ne nii dafa nekkoon faaris daa tàkk di bërëx bërëx sawara soo xam ne nee nañ ay quruuni quruun maanaam am na junni at yoo xam ne nii taxul mu fay du ab taw moo koy fay du ndox moo koy fay ba waa Faris sax àggoon ci di jàmm sawara soosu loolu tax ñu yox naan ci téere nett yi naan alfarisiyuuna humul na ñoom diinu diyaana al majusiya lañ nekkoon maanaam diine yi majus majus bu ñu ko waxee mooy humul lasina na naar mooy ñi nga xam ne ñooy jàmm sawara ñi doon bokkaale ay xeet lañ am na ci ñoo xam ne ay xërëm lañ doon jàmm yu ñu am na ci ñoo xam ne jant bi ñii weer wi ñii xeer yi ñii laneen ak laneen waaye Faris la fa siiwoon mooy sawara lañ doon jaamu ñoom ku ma saa am jafe-jafe da ngay ñëw ci sawara si imma nga tuur deret sànni ko ca sawara sa wala nga taxaw fa di toroxlu ngir ne sawara soosu dañuy yëg ne seen maamaati maamaati maamaati maam jaar na fi ba jàll ci sawara soosu kimtaan la ci ñoom ba àggoon ci ñoom ñuy jaamu sawara soosu nga xam ne moo nekkoon foofu ca Faris fajar googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee jamono ca bisub altine boobu fukki fan yaak ñaar ci weeru gàmm ci atum 571 comme ni ma ko waxee léegi sawara soosu daa jékki-jékki ne kamaj fay ci xamuñu lu ko fay dafa mel ne daal biñ nattalee dañoo gis ne ñëwug jamonoom ak sawara sa di fay ñoo ànd ñoo ànd benn minute benn heure benn bis tolloo leen lépp sawara sa jékki-jékki ne xamaj daa di fay te lu jiitu loolu xamuñu woon sawara soosu mu daal di fay loolu wax la léegi na la taarixul islaam ba bu al imaamu zahabi dalailu nubuwa bu al imaam al bayhaqi al bidaaya wa nihaaya bu imaam ibnu kasir ñoo ñëpp nett lañ ko sëriñ bi it euh, radiallahu taala anhu wax na ko ci téeram bii nga xam ne téere bu riis la mu def ci ay salawaat nett li ci ay kéemtaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci sawara soosu saxal ne sawara soosu daa daal di fay bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam game gane na jamono xawat xawaariqa badat ani ruwaati sabatat ka misli naarin utfiat mahamiha i daqami bokk na ci li nga xam ne jële nañ ko ci nettalikat yi comme ni ko sëñ bi waxe di ay nettali yu wér muy sawara soosu nga xam ne moo moom lañ daa wax niiraanu faris mu fay ci jamono ji nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi gane na jamono Euh, bokk na ci kimtaan yi nga xam ne it feeñ na te muy siiw yi muy li ñu tuddee buhayratu saawa muy bëtum ndox boo xam ne nii bëtum ndox la bu amoon solo lool ci ñoom yàggoon lool di bëtum ndox boo xam ne nii euh, biñ gëstoo gis nañ ne mi ngi nekkoon ci euh, Iraq jamono jii ñu toll mu nekkoon dëkk buñ naan am na ñu naan almadayin ala kulli haalin la nekkoon di bëtu ndox boo xam ne nii bu gudd la woon bu yaatu la woon boo xam ne nii bu màggoon la ci ñoom bu amoon taarix la euh, yàlla xéwale woon leen ko ñu ci woon yàlla nag ñoom ñi nga xam ne ñoo moomoon bëtu ndox boobu wala ñoo dëkke woon foofu ndax daan nañ fa mooy yàlla daan nañ fa jaamuy xiram daanañ fa def lu bon bi yonent bii ganee jamono ndox ma daa ngiis ba ku fa ñëwoon bu ñu la fii bëtum ndox la woon boo xam ne nii amoon na ati ati ati at ndox mi ngiisut dan la jaaxal moom la sëñ sëñ bi naan wa ayni saawata allati qad azumat wa jallati lil fursi xabla al millati wa suyirat kal xadami bi yonent bi ganee jamono foofa daa woow koŋ koŋ ba mel ne fii ndox musu fee jaar loolu euh, boo demee ci albidaaya wa nihaaya jusul saani leeral na ci bu yaatoo yaatoo yaatu bëtu ndox boobu noonu nam demee woon kasaalika it iwaanu kisra borom xam-xam yi nee nañ baatub iwaan euh, kalima farisiya maanaam moo la boo xam ne nii arab yi ñoo koy utiliser seen langue waaye baatu faris la biñ gësoo baat bi dëgg dëgg dëgg iwaan nee nañ iwaan mooy saaru bunt yi nga xam ne day rëy lool nga xam ne ay poto mooy téye bunt bi bunt bi it mel ne lu am am mbaar nga xam ne baaxuwuñ koo xam fenn ci monde bi fu dul paleb Kisra moo ko meloon loolu yéeme ci àddina bi yépp nag ña nekkoon ci jamono jooju jàppoon nañ ne palais bii nii iwaan bii nii ni mu ni mu fii ba àdduna tukki fi jóge jàppoon nañu boo taxawoon di ko xool kawe gum kawe ak màgg gum màgg ak rëy rëy ak yéeme gum yéeme dafa meloon na da doon laal asamaan loolu lañ daan tudde iwaanu kisra iwaanu kisra googu moom sax na ne Madain la nekkoon ca ba ca Bagdad euh, ci côté Bagdad ca Iraq iwaanu kisra boobu boo demee ci muxtasaru siira bu seex abdullahi annajji nettali na it lii may bëgg a wax nee na iwaan bi bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane jamono dañoo yëg ne daal mi ngi rëng-rëng yi di yëngatu yëngatu bu metti sax boo xam ne nii bànqaas yi nga xam ne moo nekkoon ci pale bi di bànqaas yu rëy rëy rëy yoo xam ne nii du geer jàppoon nañu daal doomu aadama mënut a daaneel lii ndax yéeme gum yéeme woon ak raar gum raaroon ak yàgg gum fa yàggoon bi yonent bi ganee jamono doon na yëngatu yëngatu goo xam ne nii daanaka sax lu mat fukki bànqaas poto laa la war a wax wala poto walla euh, daal loo xam ne ci pale bi la saxoon lu mat fukk ak ñeent yoo xam ne yëngatu bi yëngatu gi am na doole doole goo xam ne nii fukki bànqaas ak ñeent daanoon nañ ca toj te li ko waral mooy leer gi nga xam ne moo jolli woon ci jamono ànd ak gan ak jamono yonent bi sallallahu taala alayhi wa loolu sunu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim radiallahu taala anhu wa bi barakaatihi nettali ko ci jësu iwaanu kisran sadaha fiiha wa xablu rufia samkun lahu fartafaha nahwa samal mukarrami nee na paleb kisra boobu noonu ni mu woon wuti asamaan lu jiitu muy daanu yëkkati gu ga gum yéeme woon yëngatu gi nga xam ne suuf sa doon na ko yëngatu ak leer googu nga xam ne daa jolli woon ci jamono taxoon na ba mu yëngatu ba daan waxuma la pale bi sax waaye saal bi nga xam ne wala chambre bi nga xam ne fala buur ba nekkoon nga xam ne moo nekkoon fi ëppoon sécurité ci àdduna bi lal bi mu toogoon sax leerug yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon yëngal ba lal bi maanaam euh, tànke bi dafa dafa damm hatta kasara li ajli li ajli hawlin ihtara min nuuri afdalil wara rabbi alayhi sallimi li ko a lépp rek mooy leeru ku tedd ki sallallahu taala alayhi wa sallam googu nga xam ne moo jolli di yëngal moo jolli foofu ba nga xamee ne euh, lal boobu daa daa daan mujj damm loolu it kasaalika boo demee ci dalailu nubuwa bu al imam al bayhaqi nettil na ko mu bokkoon ci yi nga xam ne it xewoon na ca jamono jooju wax naa la léegi ne liñ ci waddal ñoom mu arrixoona yooyu ëpp na fukki irhaasaat ak lu teg waaye boo demee ci jës bu yii ma la tuddal da nga ko ca fekk waaye bokk na ci it bi nga xam ne moom it boroom xam-xam yi nettali nañ ko mu bokk ci yi nga xam ne feeñoon na ci gan ak jamono yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sëñ bi nettali na ko ci jës bu téere yooyu ma tudd yi ñoom ñëpp wax nañ ko muy nee nañ iblis da yéeg ba ci amoon na kàttanu yéeg ba romb juróom-ñaari asamaan di déglu lay xew ci aalamul malakut di jokkoog représentant yi nga xam ne ñoo nekk fii ci kaw suuf muy njabarkat yi di leen jox ay xibaar njabarkat yooyu di ko waxaat ñeneen loolu lépp rek liñ ñu ci yibloon mooy dindi li nga xam ne moo nekk taw tawxiit yi ñoom waaye yonent yàlla Isa mi nga xam ne ginnaawam la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñëw jamono bi yonent yàlla Isa ñëwee jamono ci mbaaxam ci teddam moom yonent yàlla Isa alayhi salaam waaye ci kiimtaam kimaan gum kiimaane moom yonentu yàlla isa alayhi salaam dàq nañ saytaane lu man ñetti asamaan nga xam ne mënatu fa àgg waaye téewut ba tey am na kàttanug romb asamaan su njëkk si am na kàttanug romb ñaareel bi asamaan am na kàttanug romb ñetteel bi asamaan am na kàttanug romb ñeenteel bi asamaan nga xam ne ñetti asamaan moo ko dese te li ko waral mooy ñëw gi isa alayhi salaam bi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñëwee jamono nee nañ dañ ko ilimine mënatut a jaar ci benn asamaan te li ko waral mooy ñëwug jamono mujjantelug yonent yi mu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam doon ko sànni sax ay jum yoo xam ne ci la doon dawee ay ay ay jumi ay biddiw yoo xam ne nii moom lañ ko doon sànni moom seytaan <coughs> turida fiha bi nujum ani samawati rajim wa si siran yu liim bii bi xisbihi saawakami la sëñ Tuubaa wax nee na moom seytaan moom iblis bi yonent bi ganee jamono dañ ko doon sànni ay jum ba nga xamee ne lam doon amus kàttan ak su néew ci di ko yéeg ci yenn ci asamaan yi mënatu ko léegi léegi daal bari na lu ko ump lool lool lool lool ci aalamul malakut te li ko waral mooy ñëw ki nga xam ne moo ko war a toroxal ki nga xam ne moo war a xettali xeet bi muy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon mbokk yi boo dee xool biñ gëstoo ba xool téere bii di jës bu euh, juróom yii nii nga xam ne mooy juróomi kimtaan yii nii lañ gis ne moom la sëriñ bi nettali mu ànd ak gan jamono yonente bi sallallahu alayhi wa ak ñaar yi ma junjoon nga xam ne lu jiitu muy ñëw jamono la te ba ca njëkk mooy ak wuyoom ba yàlla dajalee ruya ne xanaa duma seen boroom bu ñaareel bi mooy saxal gum saxal ne moom nekkoon na bi yonente ca booba aadama mi ngi ci diggante ruux ak yaramam ñi di ko defar loolu moom moo jiitu lépp waaye yii nii moom daa ànd ak ñëw jamono moo tax li ñu ubbee woon ne borom xam-xam ne nañ kimtaan yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti xeeti kimtaan la ba ci njëkk mooy boo xam ne nii lu jiitu lépp di am moom la ak boo xam ne nii daa ànd ak moom ci ñëw jamono ak boo xam ne nii nag diggante bim ganee jamono la ak bim nekkee bi yonent yii yépp ñu ngi koy tuddee ci ci ci langue arab al irhasaat mooy làkk mooy mot bi nga xam ne moo ci gën a siiw bi ñu utiliser bis ba mu nekkee bi yonent nag lu feeñaat ci moom ca taq ci moom loolu kenn du ko tuddee ti irhasaat waaye dañ koy tuddee ji sax loolu it moom it mu feeñal ci loo xam ne nii kenn kenn xamul nu mu toll te benn yonent bu ko jiitu mu sa feeñal lu mel noonu loolu li ko waral mooy ab dayoom moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo nekkoon tomb bi nga xam ne mooy bu biñ andi woon tey di ko leeral ci gan jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xam ne feeñ na ci léegi nag bi mu ganee jamono nag mbégte bi nga xam ne màkk gépp àndal nañ ko ak tudde gi nga xam ne moom lañ ko tuddee Muhammadu ak xeeti xew-xew yi ak actualité bi commentaire yi na ma demee woon loolu xam naa jataay bii di ñëw incha allah taala ci lañ koy jàllale ak soxna yi nga xam ne jaar na ci seeni loxo moom yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ci man di jaar la fa xew ci xeeti kimtaan moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak tudde gi nga xam ne moom la ko Abdul Muttalib tudde Muhammadu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tuutu tuut tànkam bu fekkee waxin lañ bëgg wu wu wu ngeen mën a dégg ba mu ko doonee moom yonent bi sallallahu alayhi xeeti kimtaan yu gën a yéeme yiñ tuddoon yoo xam ne ni feeñ na ci bi nekkee ndaw moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam incha allahu taala ci jotaay bii ñu jëm ci lañ koy waxtaane ñoo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. arham xayra man